you salaamaaleykum mu ngi leen di nuyu te di leen balu àq mel ni dañu xaw soj te defe naa ñëpp a soj tabarkal la ngi leen di ndokkeel ci bés bi di leen ci ziyaara di boroom bés bi mu di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jigéen ñi ziyaara góor ñi ziyaare ndaw ñi ziyaare mag ñi yal nañu ko yàgg def fekke nañ ko ren yal nañ ko fekke déwén te mu yiw biir ak yiwu biti la ko yàlla def ci barke borom guddi gi mu ngi tolloog nag tabarkal la jataay yi dafay xaw metti ci ci ñépp nag ndax koo gis muy dem rekk am na lu ma tawat loolu la yàlla dogal waaye du tee nag borom yëf yi jar na ñépp ñëw waaw jaar na ñépp ñëw tabarkat la moo ko moom te yeeyoo na ko te itam rekk nu def fatiha bu sell ñu def juróom-ñett suuratu Quraysh tabarkat la ci barkeem ak turam tabarakallahu ah dañu waxoon dañu waxoon ne at bu jot tuddal ko benn maam mu mel ni daaw talu nu ko woon waaw xanaa nu dabaatal ko soog a dugg ci waxtaan wi waxoon nañu ni am na maam bu ñoo wax kilaab ñu ne xaj nag suñu ko suñu ko dee tudd ñu ni sang baatax defe naa ci asxaabul kaaf tudd nañ ca xaj waaye sang ya ànd la tax waaye maamu yonent bi itam ki ñi ci tudde kilaaba dafa nekkoon jàmbaar nekk rëbbkat moom daal maamam bu ne am na lu mu jagoo lu nga xam ni euh, du ca ñee benn góor te dafa mel na it fa mu ko tàmbalee dafa sore xam naa may na nanu sax nu dema dema dem ba ci àddinaan waaye mu ni nanu yam foofu su la neexee nga jële ko ca kaw ca Ibrahim jaar la ko ci ismail waaye daal nu yem fa mu nu yemloo te it ñu wax ni sayid alxaaj malik radiallahu taala anhu dafa wax ni taarix kese kese moom génn na ca dugg ci sira te ne bu jëkk nag taarix kese kese la waxaloon ñu naan ko sa maam sangam sa maam sangam sa maam sangam nee na muy summi yéreem di joxe di lamb poosam di joxe ba mu demee ba ci biir nag la bàyyi xam du foofa mu mel ni kon ñu tudd tuuti kilaab tuddoon nañ ko ñu teg ci murra almaraara mooy lu wex kon nag soo waxee murra su fekkee nii lu ñoo lekk la lu mel ni fruit yooyu boo waxee murra taa gi taa lay doon bu fekkee góor nga ko tudde nag taa gi taa yi lay doon maanaam nit bu sévère te fonk discipline dinañ ko di tudde murra te lu am solo la parce que itam moom ci ñi xewal lekk ñetti baaraam ca la bokk ndax dañu wax ni lekkin dana nose ko waaye lekkin itam dana tas jikko am na ñoo xam ni seen lekkin rekk ci ngay xame seen jikko bu ñu dee ku yiw nga xam ko bu ñu dee ku yiwati nga xam ko moo taxoon ñuy ñaan bala nga lekk moom ci boppam moo ko daan ñaan nga lem sa ñaari baaraam di lekke sa ñetti baaraam lekkee sa baaraamu digg ak sa baaraamu sànnikaay ak sa baaraamu dëy lem ñaar yi ndax bañ nga lekk lekkin bu ñaaw bañit nga gaawantoo lekk moom ci ñi ko tëraloon la bu mu foofu wéy maanaa lekk juróomi baaraam araamul wante daf doon tëralal njabootam pour ñoo xam nañoo lekk boo demee ci chinois yi dañu jël ñaari bant di ko lekk yooyu yëpp xeetu nose lekk la mu mel ni kon maamam boo tudd rekk am na njëriñ ñu teg ci kaab kaab nag mécceem moo doon képp ku amul pour protéger sa bopp mu protéger la mu mel na ba tey ji ko yaaram la ji ko yaaram la dëgg-dëgg rekk ku mënalul boppam dara nga dimbale ko ndax dañu wax ni néew doole tooñ la loolu moo tax mu daan ko def waaye ci am solo mooy ñu dellu ci waxi Seydi El Hadj moom yàlla dogal mu mujj xam aada gedd ko dellu ci xaqiqa xam nga li wutalee siira ak taarix kese kese mooy taarix kese kese fopp gestu gannaawam xam li paase lan la fokkit mu xalaat li nar a ñëw ba xam naka la cay def wante bu dee siira bu dee taarixu yonent bi amul passé ndax muhammad sallallahu alayhi wa boo ko nee ibrahim mu wuyu kon nag amul passé pas-pasu jullit boo ko nee boo ko nee aljanna mu wuyu kon nag amul avenir yooyu ñaar ñoo fi nekk li ci des yépp nag fa mu sax rekk la sax moo ñuy tere ngay tudd dund yonent bi ak ñi mu njaboote ngay nga di ci tudd xew-xew xew-xew tudd ko ci dundam ak ñi mu njaboote bakkaar la ndax xew-xew dafa xew yi te yonent bi dundam dara du ci xewi loolu moo tax bu mel ni kon nag xëy na ku seet njabootam yii fi toog daa xam ni dundam nekk nekk la wante du xew-xew dundam nekk nekk la wante du xew-xew xew-xew dafa xewi te moom daram du xewi mu mel ni kon guddi tey gi ca la bokk tabarkalla tabarkalla lu mat a bàyyi xel la am na loo xam ni du bàkkaar wante càggante la te càggante nag moo yées bàkkaar moo ne kenn du la ko bindal waaye moo yées bàkkaar nag maanaa gane àdduna ba xëy génn ko te xamuloo li la tax nekk ci kaw suuf kooku moom musiba la te nit dafa di kenn te bare nit dafa di kenn te bare comme kenn la dafa am lu ñu ko dénk li ñu ko dénk moo di dafa am lu mu war a gérer li mu war a gérer mooy contradiction yi am ci dund yépp nit a ko war a gérer waaye waru ci sukkandiku pour di wedd yàlla te yàlla itam comme ni ñu koy waxe léeg-léeg mu feeñunu ci kaw mooy yàlla waaye léeg-léeg mu feeñunu ci kaw mooy buur bi bu fekkee def ñu feeñu te fekk mooy buur bi moo gën a woyof ci nun waaw moo tax muy wax ci wàllu googu jàppale leen ma ma jàppale leen in tansurullaha yansurkum wante bu fekkee wàllu yàlla gi nag la feeñal kooku dafa wax ni moom ganiyun anil alamin waaw waaw ne nee na doyewul kenn dara faaliwul kenn nee na boppam doy na ko sëkk ba mu nekkee ba bi muy bind kenn xamul na mu toll waaye bu dee wàllu nguur gi nag buur dafay soxla ku ko jàppale ah. moo tax muy wax ni jàppale leen ma ma jàppale leen waaye bu dee yàlla du soxla kenn la anil alamin contradiction boobu la bëgg nga gérer ko waaw waaye bu mu la tax a lu mat a bàyyi xel la ndax ñiy weddi léegi dafa bare te ci xam-xam la ñuy sukkandiku pour weddi waaw niñ ñu ci lëjale dafa bare waaw dañ ñu ci lëjal bu mu ëpp maa ci jot ay bind ay téere ñii di wax ni alquran xam-xamam ci science barewul waaye fekk na kiy waxe alquran moo soxlawul wax ju bare loolu rekk la moom bu dee wax farata ñetti baat lay wax te ñetti baat yi bu dee yow daa ko dee fukki téere ki bind wax kay warul bare wax waaw ki bind wax warul bare wax waaw waaye yow mi mu bind yàgg wax nag doo deñ di wax ba faw kooku noonu rek la yonent bi mas na ko laaj ni ko suuf si kañ la service am di jeex mu ni ko ngeen xam ko du priorité pour yéen waaw bokk na ci sonal sa bopp fekk lu dul sa priorité nga di ko laaj doxul doxul mukk te yu bari yi rekk ku yëpp wàññi ko am benn mbokk taalibe bu mos laaj seen Babacar Si ni ko al arsh wal kursi bu ci ëpp mu ni ko ndax sénégalais nga mu ni ko waaw mu ni ko Kaolack ak Ndar bu ci ëpp mu ni ko xaw ma ko mën ko négal ba xam ko waaw waaye di laajte rek di laajte rek ak di jamaate rek di jamaate rek alquran déggul science alquran nangam conception bu étriquée la am ci science te loolu doxul nangam nangam kenn organisé wu ko bëgg imposer yàlla méthodologie bi nga tënku yow te moom mooy yàlla yow yow doo kenn kooku doxul doxul nag yow mi nga xam ni parce que yàlla dafa daj kumpa mais nit dafa bañ kumpa du benn yàlla dafa dañ kumpa dara ump nit dafa bañ kumpa xamul dara te bëggul lu ko ump moo tax dafa bañ kumpa waaye yàlla dafa deñ kumpa dara ump ko moo tax alquran ëpp naa jam kenn du ko jam mukk su ko defee yonent bi mu wàcc ci moom fekk na maamam yi leen gën amul lu ñuy tàgge góor ak jigéen mi ngi ci ñoom dem nañ ci ba kenn jëkku leen wut li ñuy tudde parlement ñu tudde ko daaru nadwa waaye ñu teg ko ci aada teguñu ko ci xaqiqa te yàlla ci boppam xam ni du nangul yonent bi muy tënku ci aada waaye ñu teg ko ci aada teguñu ko ci xaqiqa yàlla ci boppam xam ni du nangul yonent bi muy tënku ci aada li mu koy nangul mooy mu tegu ci xaqiqa moo tax bi mu ñëwee ba wax yu bi commencé ca la parlement ba tas la ko tas nag mooy mag ña fa nekk ni ñooy député ya ñoo wax ni Jibril daal tooñ na ndax jël wax yu rekk yóbbu ca bani Haasim jox ko fa xaleel tooñ na dafa waroon jaar si ci ñun mag ñi laaj nu bu ko defee ñu wax ko na mu war a def wante wàcce wax yu rekk yóbbu ca néeg sàngam jox ko xaleel nangam nangam nga daldi gis ni xaqiqaa gi folli si aada waaye bu jëkk foofa mag rekk a fa wax léegi nag wax yu wàcc na ci ndaw lu ci nit mënati pexe amul moo tax xaji Saydu Nuur nee na bu ñu nee xale ba nee dawal topp ci bu mu la rëcc mukk nee na yàlla du may borom bëjjaaw ne ndaw rekk lay may ne moo tax bu ñu nee xale ba rekk dawal topp ci wax la ni jékki ba sa bopp weex tàll ngay xëccoo boobu la la rëcc rëy nag amul sax werante mu ni bu ñu nee xale ba dawal topp ci mais bu mu la rëcc mukk booba dama doon def waxtaan ca champ de course mu ne nañ ko may mu ñëw préside si ko ñu may ko ko mu ànd ak alaaji Ibrahima Diop keroog la ko wax am na ñu ko fekkee mu ni bu ñu nee xale ba dawal topp ca waaw ne bu la rëcc mukk tabarkalla tabarkalla yàlla bu la dee may ci ndaw la lay may waaye du jëkki ba nga màggat mu soog lay may du ko def mukk ah waaye sëñ Babacar si daan wax ni nee na ndaw rafetul dafa di ndaw nee na ndaw rafetul dafa di ndaw ne màgget moo rafet ndax moo niru yàlla ma ni ko ci ah, ràcc jëmi ci sa kanam di mu dëll waxin la bu ci ne moo tax foog nga gérer contradiction yooyu boo ko deful rekk àdduna tukki waaye di nga gis ku dund ba am téeméeri at wuy ji boromam te du xam ni loolu war na ko àdduna bu tukki lay doon ndax kenn du la ci bindal bàkkaar kenn du la ci bindal bàkkaar ndax dañu lay jëppi ku ñu jëppi kenn du ko bindal bàkkaar ku dund téeméeri at te fàttalikuwul li ko indi ci kaw suuf mi ngi julli mi ngi woor mi ngi aj mi ngi joxe azaka mi ngi def lépp waaye li ko indi ci kaw suuf fàttaliwu ko benn yoon bu ko defee rupture dafay am digganteem ak asamaan kooku amul sax werante nit ñetti waxukaay la am waxukaay bu jëkk bi xaqiqa folli na ko te muy daaru nadwa aadaa ko faloon xaqiqa folli na ko waxukaayu ñaareel bi ñett ku seq nit bakkan ak ruux ngoon gu nekk bakkan sañul tëdd te rendrul compte ruux te nit a ko war a sedd waa bu ko nit seddewul nag c'est que xamul lu ko bàyyi ci kaw suuf te seede bi du ëpp fukki minit xamuloo ni boo ko seddee ba noppi demal tëddi walla nga dem naafila ji walla nga dem defi sa lecture walla nga doxantu ji lu la neex defal waaye fukki minit yi daal seedeel li bakkan bi di wax ruux bu la rëcc mukk nga rëccee àdduna tukki ndax bakkan plénipotentiaire la ci ruux moo ko fi teg ci ndigalu yàlla kon nag li mu yendu na ko ci defal compte rendu waaye yow nit nag lañu seddaloo lool ngay kenn tey ñett ngay kenn tey ñett waaw mais di gis mu kàllaf muy sonn ci àdduna ba dund téeméeri at te du fàttaliku bés bu mu seddee lool catastrophe la banaa jar na bàyyi xel nag ndax léeg-léeg it ñu xaw sàcc yëg ni am na ku nu xaw bàyyi tuuti te fekk dañ ko dul yëg moom itam dootunu yëg ñu ngi koy jaamu wante yëgunu ko waaw moom itam du nu yëg lu am solo la ndax tubaab bi ak crétan bi bu fekkoon dafay bàyyi ba ñetti weeri traite yi jeex mu sog a seet lu xew traite ba yàqu ngoon gune dana seet li ci tiroir bi seet li ci kofre bi seet lu dem ci hangar bi bes bu nek su ko deful xana xaar ba ñetti weer yi jeex yéppam yàqu wante nit itam war na ngoon ku nekk comme moom mooy seede bi mu fekke fu bakkan di waxee gur wax boku faratal mënul ñàkk te it la ndax sa buum ak asamaan du dog ñetteelu waxukaay bi ñaar rekk a koy seq muy borom bi ak ki muy waxal dinga gis ku dund téeméeri at ba xëy ñu suul ko du fàttaliku fu mu waxtaane ak borom bi catastrophe la bu jëkk bi mooy mushawara bu ñaareel bi mooy muhaasaba bu ñetteel bi mooy munajaat kooku lool rek la munajaat nag yàgg yàlla rekk nag ngeen waxante waaw nangul na ko góor nangul na ko jigéen batay tey mi ngi fi waye gisulo kenn kenn kuko jariño sunu bajjan bu bax ba rabi'at al adawiyya dan nako wax ولقد خلوت مع الحبيب ولقد خلوت مع الحبيب wa baynana sir pexe amul booba prince yeeg ñépp koy bëgg soxna waaye fekk na logique gu yàlla boo ko miinee te di jigéen dootu mën a séy góor ndax waxu góor dafa géey ci yow ku miin waxu yàlla beneen wax dafa géey looloo tax sonnal nañ ko ci ba tey tëj nañ ko ci kaso sax waaye rek wala qad xalawtu ma alxabibi wa baynana sirrun araqu min annasibi ida sar mag ñi dañuy wax ak yàlla xam logique am bu ëppee ñu gedd nit ñi parce que duñu mën waxate nit ñi bu ñu géttee nit ñi yàlla punir leen seetal loolu ndax ku jëm asamaan foog nga xool ci suuf boo téenee rek dugg ci kam loolu tax loo miin miin logique boo géttee nit ñi mu punir la pexe amul mi ngi metti moo tax mag ñi daan ko wattu ndax risque yi mag ñi dañ ko daan wattu ndax risque yi yenn yi ñu di ko moneyee xam nañ ni prestige ci loolu la yem waaye am lu ñu ko jëndi yàlla nangu ko mooy mu jox leen quota te bañ leen waxati wax ak moom li muy neex yépp ñu jënde ko kota quota bi mooy lan mooy xam nañ ni minorité moom aljanna te ñi leen topp rus nañu ñu torox li wax yàlla di neex yépp ñu jënde ko quota ndax lu bon bon minorité bi ñoom it ñu am as minorité buñ ca teg defee aqtaab yépp ak ambiyaawu yépp ak awliyaawu yépp ku ci ne yaa ngay seet quota bu ñu lay jox te nag arab yi ñoo léeb ni ak dawdu bi dawdi ibil ku nekk indee mboocoor gàddu gëléem taxaw waaw azawd bi zawd ñoom daal rus nañu bañ a yóbbu kenn aljanna rus nañu ko te yàlla moom li mu dogu mooy tuuti ñooy dem aljanna waaw ñi ñàkk fayda ñépp du leen recevoir waaw ñi am fayda rek waaw ñi ñàkk fayda ñépp du leen recevoir waaw bañ ku ñàkk fayda la waaw moo tax Maodo daan wax ni ah man daal bugguma ku ma ràmm parce yiwul yàlla bind ma tàgguwul kenn ma def li ma war mu xëy naan ma aljanaa ngi waaye diwa tax nee na moom la tudde aljanna yi gàcce ma ne ko moo ne ku ci jot sant ñu ni ko àjjana ah lal yu nooy yaa fa mu ne am na fii waaw ñu ne kon naan yu saf suukar yaa nga fa mu ne am na fii ñu ne ko jigéen yu yiw yaa nga fa mu ne am na fii ñu ne ko wax ju sew amu fa jëf ju sew amu fa mu ne waaw kay booboo ko jar waaye itam am na fii nan ko tàmbalee fii waaw bu nu waxati wax bu sew bu nu jëfati jëf bu sew waaw ndax sunu àdduna di sunu genn wàllu aljanna ndax mag mën na ko waaw léeg-léeg mu wax loo xam ni doo xam nu mu ko waxe te daf ciy dëgër fi xam nga ku xëy ni aljanay gàcce te ñépp ngi wut ku leen ramm na wax ni bu mag ñi daje woon ñaan ma ma wutal yàlla sant ndax yàlla tur rek la am amagul sant lu dul xanaa li ko séeréer yi sant la ni bu mag ñi daje woon ni naa ko wutal sant njuuy laa koy santale waaw ndax foo ko tëru mu teggi dafa nekk ku imprévisible kenn mënu ko napp fen li mu bëgg rekk la xam amul ken ken ku ko mën a ci bëgg-bëgg te te limu mu bëgg mooy nekk mais li nit ñi bëgg du nek ndax àgguñu ca sañ la te li mu bëgg rekk mooy nekk waaw li ci des yoonam nekku ci te it nanguwul chantage nanguwul marchandage nanguwu ko kër yonent yàlla saalex bañ ko ne bëgg nga nu gëm la te gëm yàlla wax ko ni ko mu génneel ñu gëléem ci xeer bi gëléem goo xam ni dëkk bi yépp dinañ ko mën a rat lekk ci ba suur te benn lay doon saalix xalaat ni loolu mënul am te kon ñàkk teggin la mu di ko laaj borom bi bi mu koy xalaate rekk gëléem ga génn ñépp rat naan ba doyal waaye chantage la woon marchandage la woon ku nekk naanee ba doyal dem tëdd ak ah, gëléem gi moom du dund foog mu dund yàlla yebal ko mu dem lekk tool ya ñu bayoon yépp parce que gëléem gu dundal dëkk war naa mën a lekk waa dëkk ba yépp bay waaye ba loolu fàtte nañ ko yàlla moom fàttewu ko daf koy faral di def ba léegi bàyyiwu ko ba léegi ba léegi bàyyiwu ko boo dee dund ci calcul nga koy xam boo dajalee chiffre yi rekk mu génne ca benn di la seetaan te boole ca nag di la jey nga defe ni yaa ngi ca yoon wa di dem di dem di dem di dem réussir na réussir na réussir na ba gis ni am chiffre boo xam ne bu agsiwul rek nga al ko fekk ma nga ca loxo moo koy def yoonam neku ci loolu la ko nit di soppe ndax buur daf koy mat loolu la ko nit ñi di soppe ndax buur daf koy mat keroog bi yonent bi waaj pour dem ci jihaatu mu'tat daf ko ni boo ca demee des ca mu ni ko lu tax mu ni ko loolu laa dogu nu ko kon na may def mu nu ko bu ca dem mu ni ko ku ma fay yebal mu ni ko ki nga gën le mu yebal fa jaafar ibnu abi talib mu dem ñu rey ko jihaad bu yonent bi demul kenn du ko tuddee xaswa lu dul mu'tata ndax moom la ñu rey waaw ma nga ca kër ga waaye moom la ñu rey waaw moo ñu tudde ko moo ñu tudde ko xaswatu mu'tata seetal loolu keroog la abdullahi ibnu rawaxata jooy jooy yu métti ci mag mu masul jooy mukk ba ñi ko wër ni ko lii lan la jaalit mu ni déedéet saalituma dama gis góor def tey ak loxoom rekk lu góor masula def ba àdduna sosoo ba léegi te góor dootu ko def ba ba àddunay tukki te mu wóor ma ni ku mu soobul mu yóbbu la aljanna du ko def loolu moom moom la yërëme tey góor ñii li ñu def na mu toll te bu ko neexul rekk du ñu dem aljanna Loloçi nerede? Yanım. Yanım. ba iblis yabale njabootam ya ñuy espionné fa secret ba nekk parce que seen xam-xam àgg na ci ndax énergie bi ñu leen bindee àgg na ci sew ak bare doole fu ñu mën a rocc koo dem ba fa ñuy defee secret ya sunu boroom ni dàq leen leen lu ñu leen sànni du jëriñ mu ni leen parce que li leen di rey mi ngi jóge ci énergie bi ma leen binde ñu jël ko rekk liggéey ci li ñuy tuddee roquette ku ci benn dab rek def la pënd wante budul lolo loolu amul lu leen mën a rey moo tax bi abraha ñëwee ni dafa toj kaaba gi ñoom it ñu jëli ca mu ni leen bu ngeen ko defee def musiba kon waxuma ni terre sainte dootul am mais planète terre dana nekk sunguf ñu ni ko nañuy def mu ni tibbi leen ci ban bi ma abraha def ko ay bulet lakk ko ci fuur sànni leen ko daañu dee te màkk du toj nga ca inni alamu ma moo tax moom moom yëfum yaalamu ma laa taalamuun waaw moom moom yëpp ku gis ni muy jëfanteeg yonent bi rek di nga ko xam ndax ki gënal ñépp nga àttan ko topp minute ak minute waxtu wu nekk yaa ngi ko naan wattul du noonu bur jar foofu bu ma fontoo yaa ngi may bëgg jënd sa bokk yi boo ko defee ma alak la te wax yu la ñépp a koy jàng ba xale yi sax xam ni seen góor gu tedd gii ndeke surga jàmbur la yoonam ci ko xam-xam bi nga tiitaroo mën naa koroj ci léegi ba dootoo xam fooy teg sa tànk te doo gis ku ñemee ñëw intervenir fii ci man mu di ko wax ki mu gën a bëgg ah waxtaan nag da nga yem ci kudd ci rof la ci mbofu moo gën a baax mu mel na kon xam naa your neck